doomam yi dem dañu nëbbatu ndax yaay ji dafa rëbb képp kuy dem taxaw ci néewu paa bi famille boobu la ñu amal affaire nous on a des problèmes sérieux au Sénégal on a des problèmes très très sérieux le général Moussa fal est prêt à brûler ce pays est prêt à tout faire mais moom nee na continuation rek mu ne juróom-ñetti téeméeri fukki xelam dajul Ousmane Sonko di jël réew mi ma wax leen donc les patriotes on a une charge mais lenn rek lu ñu am ci suñu côté aujourd'hui tous ces gendarmes qui ont été euh, euh, ñu ñu wàññi seeni ay promotion et vous avez toujours vos armes prenez les armes vous avez toujours les armes et vous êtes très bien entraînés on n'a qu'à faire face il faut ñu def face ak général Moussa Fall ak délinquants yi fi ne parce qu'ils ont décidé de prendre le pays en otage Ousmane Sonko moom nee nañu dee ak dund il ne va pas accéder à ce pouvoir dee ak dund na la leen jaral te pourtant kenn ci ñoom ñemewul dee ni ngi leen di gis noonu kenn ñemewul dee ils sont prêts à tout et il a des milliards Moussa Fall il a des milliards et des milliards mais jubawul ak kenn ci koor yi du gendarmerie du militaire du police du kenn nee naa leen keroog bi ñu demee bay lâché Pape Alé Niang pour la première fois Macky Sall bi ñu ñëwee teg affaire yi mu ne ah nañ ko bàyyi parce que boobu adduna bi monde bi moo teg pression ci Macky Sall Macky Sall ne nañu bàyyi Pape Alé Niang mu ñibbi Moussa Fall dafa ñëw mu ne Pape Alé Niang du génn ci kaso bi jamais parce que boobu yéen a ngi fàttale ko mooy rapport gendarmerie bi c'était le rapport de la gendarmerie donc en danger mes frères on est en danger léegi nag mën nañoo xeex dindi danger bi wala ñu toog suñu kër yi danger bi continuer ci ñun mais on doit se battre des millions de sénégalais imaginez leen suba yéen ñëpp benn cinq millions un million de sénégalais yi war a parrainer Ousmane Sonko yéen ñëpp ngeen dem taxawu buntu DGE fan lañ leen di dóoree nuñ leen di gaañee comment cette petite police et gendarmerie peut faire face à cent mille deux cent mille sénégalais loolu lu mu mënee nekk c'est notre responsabilité c'est notre responsabilité bu ñu ragal bu ñu ragal bu benn doomu aadama ragal parce que boo ragalee problème bi sa biir kër la lay fekk Moussa Fall et même prêt à faire un coup d'état ma wax leen ko bu mbir mi jaxee ba jax ba jax ba xamul lu muy def day def coup d'état pour jël réew mi parce que Moussa Fall li mu def ci njombe kenn xamul li mu toll kenn xamul Moussa Fall li mu def ci njombe ci Sénégal benn doomu aadama xamul lu mu toll lenn rek la jubook Macky mooy Amadou Ba moom d'accord nañu jox Amadou Ba réew mi loolu rek juboo na ko ak Macky mairie bu Bambilor dégg naa saccagé nañ ko mairie bu Bambilor force de l'ordre yi ak population yi dégg naa amul xeex buñ fa xeexul mairie bu Bambilor de personne blessées même Bamba mu Médina mi ngi créer ay tappale di wax ay waxu financement di wax ay waxu recensement di def yenn tappale Bamba Fall ku mu woo gars yi jàpp leen seeni ay carte ne sorte pas vos cartes d'identité lu leen mën a wax muy financement woo muy bindul dañ leen di dimbali gouvernement nangam fii ak ñeenti weer élection yi ku ñu jël sa carte dañ koy enrôler parti au pouvoir ku ñu jël sa carte d'identité fii juróomi weer ñeenti weer yi di ñëw élection ku ñu laaj sa carte d'identité même bu leen jox ñuy bind say numéro di bind say affaire déedéet carte d'identité war nga koo mën a wone pare ci dugalaat sa poche waaye di jël say filiation moom lépp lu parti bi créé lépp lu ñu créé muy ay ndaje ay xawaarewu ay lépp lu ñu daje nee nañu suba sax Khalifa Sall mi ngi organiser benn aussi ma wax leen fan lay doon loolu ñoom dañ koy def pour mën a jot ci seen carte yi voilà tey bu Bamba Fall la woon suba Khalifa Sall la ñu organisé Bamba pour la compte de Amadou Ba fépp foo leen dem ñoom dañuy tàppale pour jël seen carte d'identité yi pour parrainer ko bandi yi nga xam ne ñoo nekk ci bopp réew mi jéggal leen ma numéro bi dama dama juum mi ngi ci téléphone bi may live nii fa problème yi nekk téléphone bi may live foofu lañ ma yónnee information bi donc j'aurai des difficultés à le sortir parce que su ma demee mën naa interrompre live mais Bamba Fall ah am na ku bind de am na ku bind de man binduma lii voilà mu ne am na ku mu bind fii ne Walf day liggéey ak Moussa Fall euh, loolu moom mën naa leen ko rassurer y a des journalistes comme à Walfadjri léegi nag damay seetal ñenn ñi pour ngeen comprendre léegi walf bu leen fa laal ku mel ni Moustapha gisuma ko fenn foo xam ne gis nañ ko ci ñàkk fayda yooyu Moustapha Diop buleen leen fa laal ku mel ni Pape Sané gisuma ko fenn bu leen ku laal ku mel ni Amadou Makhtar Diallo ak euh, notre frère chrétien la fàtte naa turam euh, kooku tamit ak euh, cette dame Salma Fall ñooñu boo xoolee walf ak dame bu bees bi nekk réveil donc boo xoolee walf ku lim juum mais di nga xam ñi nga xam ne ils ne sont pas corrompus mais boo demee Walf rek nga dégg ay nit nekk fa di wax lii di wax lële rek xamal ne jënd nañ le maam biram wàcc aussi macha allah excellent mais Walf jënd nañ fa ay journaliste Walf jënd nañu euh, Keweloo jënd nañu ak yeneen bari na koor yi ci Keweloo jënd nañ fa ay nit voilà tudduma fi nag xam nga tour spécifique mais ci Kéwélo ci Walf ak feneen ak feneen bari na yoo xam ne jënd nañ fa ay doomu aadama donc je vous garantirai que ci fan yii di ñëw di ngeen gis lu baree baree baree bare ci changement déjà ci communication yi boo leen xoolee même ci maanaam ñiy tuddee seen bopp sax ay juriste ñu bari dañ leen jënd fi mu toll nii seen caaxaan xam nga fan la dem nee nañu li ñu waxante nee nañu ñun nañu bañ a jox Ousmane Sonko ay këyitam yóbbu ko ci procès ci mbirum mambay ñaam bi yóbbu ko cassation teg ko ay daan <laughs> mbetteel maa ngi leen di ñëwaat ils n'ont pas compris ba pare boobu benn option la deuxième option bi ñu ngi teg pression juge Ziguinchor bi pour mu def lépp lu mu man pour mu démissionner juge ba ginnaaw loolu nag juge ba moom defe naa du jar ngeen ma wax leen ko man du jar man ma wax leen ko ndax ñun ñëpp a ko xamandoo am lu ñu xam ci moom juge ba Ziguinchor donc gars yi il faut ngeen xam ne le général Moussa Fall Marème Faye Sall clique boobu voici le clique le clique dangereux boo xam ne moom Macky Amadou sax fi mu toll nii dañ koo jàpp otage parce que maa ngi leen di wax benn yoon Amadou Sall sax mus na fee xuloog papaam am yaayam ne yaayam bépp problème bu papaam am yaay gee ko ko yóbbee Marème Faye Sall c'est la personne la plus dangereuse